Thiès ñoo ngi bàyyi xel bu baax a baax mbirum kii di Mamadou Lamine Massaly di njiital conseil d'administration bi office national formation professionnelle ak maître Ousmane Diagne di meeru Thiès Est ginnaaw bi mu ko tuumalee tentative de meurtre port illégal d'arme ba tax na mu porté ko plainte ci tribunal grande instance bu Thiès. suñu gisee à Thiès à chaque manifestation la même personne muy Mamadou Lamine Massaly ci fan yële ñu génn gis nañ bi xale yi di manifesté wu mu ànd ak ay nervi yor benn pick bu weex jàpp ay xale teg leen ci kaw pick bi di leen mbéj di leen saaga yor fitalam Sénégal ñëpp teg ci seen bët te benn poursuite dara fekku ko ci ñu gis ajuma xale yi di manifester waat mu juge këram jël pistolem songu xale yi ñu filmer ko te dara dara fekku ko ci ñu ni nag lii bu ñu ci jugul dina ëpp ay. ba tax na kii di Massaly moom xaarul dara ngir tontu maître Diagne tax moom it porté na ko plainte diffamation ak lu ñu duppee dénonciation calomnieuse maanaam yàq der rek moo tax a jóg meeru Thiès bi. saabu bu taal di am man maay nekk cible bi. man munu ma nangu Ousmane Diagne jiital ay ndaw ñu déparé place de France romb gouvernance romb Croix-Rouge romb manufacture ñëw ba sama buntu kër di fi taal au vu au su de tout le monde man est que damaa war a toog di croiser le bras sama kër wala di attaquer suma kër yaay. parce que toog ne restaurant bi muy fréquenté ñëpp xam nañ ko gannaaw mairie restaurant bala toog ne moom tribunal lay liggéey dana ma détruire parce que ay collègues ñoo fa nekk. may wax père de famille ak mère de famille nañu téye seeni doom ñoom bu ñuy waxtaan si kaw duñ ko fekkee suñuy discuter duñ ko fekkee suñuy raket kilifa yi duñ ko fekkee bu xew jotee ñuy génne doomu jàmbur yi pour ñu leen di rey si mbedd bi. bile coow ci diggante ñaari acteurs politiques yi xamuñu fu muy mujjee. lu dul toog seetaan gumba fu muy mujj ki gëtam